arbitre bi wax li règlement bi nangook li mu bañ arbitre bi leen koy wax wax na Bébé Diène Fourrière nee na ko waaw wax na ak Fourrière Ousseyn arbitre bi laaj na ay jugeam ndeysaan arbitre bi sifflé na samedi 14 mars 2020 arène nationale journée Assane Ndiaye Baol production moo ñu fi woo diggante Fourrière Bébé Diène cokkaas nañ xeex ba Ousseyn combat ba ña xeex ñoom ñaar combat bi amul round d'observation 19h47 la arbitre bi sëf la Bébé Diène ak Fourrière ña xeex Ousseyn jàppante nañ ñoom ñaar. bàyyi ji li kenn mooy sa morom mu nooyi Abida suuf léegi ba fetali tàkk Bébé eh, am na client tay de. Fourrière du ñeexu ñeppe sëgg dóor benn uppercut Bébé a ngi dóor ba Bébé Diène la bëgg Fourrière daa bëggoon xeex ak moom ñoom ñaar xam naa ni combat du yomb. ñaari xale la ku nekk daa bëgg a daan déclenché jëm ci kaw Ouzin muy Bébé Diène muy Fourrière. Baye Jili Bébé Diène boo xoolee Baye Jili Bébé Diène doole ji ma yaakaaroon ne moom la andi ci combat bi ah ñoom ñaa xaw ñu neexo Baye Jili. neexoon nañ Ouzin. neexoon nañ ndax boo gisee bi ñu jàppantee rek ku nekk añ pees moom tel na ko ah. Fourrière na ko tànk. Fourrière loolu mu def noonu baaxul. Fourrière mii ragal naa ko. bërëm bi am na bëre boo xamante ne mu ngi ci moom mu di nëbb moom Fourrière ndax ñu bari. Bébé Diène lañ joxoon favori mais Fourrière mii nekk na koo xamante ne Ousseyn ah nañ ko seetaan de. Baye Djili man daf maa bett moom Fourrière Fourrière mii Baye Djili daf maa bett ndax damaa foogoon ne bois bi siflee dindi loxoom seen diggante ñoom ñaar kii di Bébé Diène day tàq ci kawam. gauche droite taxar naa sa mais boo xoolee bi Bébé Diène tàqee mu répondre Bébé Diène xam na ne am naa adversaire tey Baye Djili ne woon naa la combat bi du yomb combat bi mënul gaaw. ñoom ñaar dañoo ñoo ngi dóor bébé jéen a ngi dóor si suuf. bébé jéen ngi dóor. Fourrière fi mu jàpp dafa baax daa bëgg mu sigi. zongale na ko bébé jéen zongale na ko. mais bañ na am na lu naaw. protestant ba protestant gal protestant bi. bébé jéen la bébé jéen ba. bébé jéen yàpp <laughs> frère mi. sama xel ñaaw na. waay sama xel ñaaw na baa ji. combat boo koy seetaan. sama xel ñaaw na. vraiment mbër sax yi nga xam <laughs> li Assane Ndiaye di wax xam la. sama xel bee tax ñemee wu ñoo wax rek xoolal Fourrière la muy def am na ku wari Fourrière ngi jaay ah, nañ dem xool arbitre bi woowaat na leen arbitre bi sifle na baa jili arbitre bi Bébé Diène door na Fourrière ña xeex ña ngay xeex kaawo kaawo eh ña ngay xeex Bébé daw na jëli ko. <laughs> xol sedd na sama xol sedd na baa jëli. kii mooy tëj saison bi. eh baa combat bi waaw waaw ma ne xale. <laughs> maa gëm xale yu bëri. làmb xale. ndeysaan xale yaa ngi noonu eh tenoo bu fi bañ a xeex nañ xeex bi ma ne tenoo bu fi bañ a bëree da ngay bëre bi Ousseyn xale yaa ngi bëree baa ji lii moo tax ponkal yi namatuñu combat bu mag ndeysaan Ousseyn bu waxati loolu xale yaa ngi wane seen bopp baa ji lii moo duloo dogali rek su ma nee suba nga ne soq gaamu gay ndeysaan combat bu neex yàqu na eh, est que yàqu na baa ji lii waaw président joxe na décret combat mënul am suba baa ji président waxul loolu ay Ousseyn bàyyi li ngay wax. bàyyi ji li président la lool de. déedéet bàyyi li ngay wax ko ba xale bu ñu jàngi. activité yëpp la ñu arrêté lépp. loo xamante ne xeetu manifestation la Ousseyn président nee na nañ ko ci réew. ah fii ba la 14 avril. kon baa ngi noonu. te sax njort nu am le 5 avril xanaa après. kon grand baa ngi noonu. combat bi nag mooy combat boo xamante ni sëñ Bas dañ koy bëre rek jubali aju. téye ci ba après yàlla def saafara réew mi saafara mbooloo mi réew ci coronavirus bi ñu dellu si waat fii ci arène nationale. bàyyi loolu soo ko waxee dag may tiital. ndeysaan na noonu bébé Diène Fourrière. coronavirus bi ngay tudd. ko kon. ngi jàppante bébé Diène tey daa am client bébé Diène nam daan dirisé la daan wax sa koñ et sa gañ. waaye tey am na adversaire moom Bébé Diène Fourrière xale la boo xamante ne Ouzin dafa am concentration ci làmb mais Fourrière ni nga koy gisee dafa sérieux fàqat na ko mbaa lu mu nar Fourrière lu mu nar Bébé li mu def léegi baaxul Fourrière mi simil naa ko sàppo Fourrière la ma waxoon ci combat bi yëpp gis naa ko ne woon na ma ndiis bi ndiisam la buñ ko ko joxul da koy jëlal boppam waaye xawma ma dina ko jëlam déet waaye mu ngi ci tànk yi muy jëlee ay ndiisam wax na ko de. du ñeexum ñebe benn xale moo fourrière mi ma gis nii. sama papa Kayre jug na sees bi. daa defati mën a nem su andee ay xale. da leen di teg ci xolam. baa ji lii doom dafa sax ci xol. ndax boo xoolee kii di bébé Diène. Diène Kayre. doomam bii bëre tudd Diène. moom la bébé Diène duppee boppam. daanaka doomam la. te gis nañ ko moom saa bu doomam di bëree. du ànd ak sagom. du seetaan sax làmb ji. donte moo topp si 16 waaye bu ñu ko teewul dugg ci digg géew bi moom moom Boy Kaïré ñoo koy nuyu bu baax a baax xale yaa ngi jàppante Baye Djili Ousseyn xale yaa ngi jàppante Bébé Diène da ànde ngeñ Fourrière di ko déglu combat bi nag bu yàggee damay ragal du avantage du Bébé Diène ndax bu plaqué na ko Fourrière day bañ Bébé Diène combat bi du combat bu ñuy forcé combat la boo xamante ne dañ koy cons ndànk-ndànk Fourrière a ngay dóor ma ngay dóor Fourrière du dellu frère mi li ma gis si combat bi est-ce gis nga ko Baye Djili mooy lan Ousseyn ñoom ñaar boo xoolee dina man gis naa ci ko xaw ëpp doole ci ñoom ñaar ah Ousseyn loolu kan la du ma ko wax man de damaa jàpp ni ñoom ñaar ñoo tolloo doole fi mu toll nañu seetaan Baye Djili nañu seetaan Baye Djili doole ji am na fu muy feeñee jege nañ saako yi daal xam naa ni ñoom ñaar coono ngi commencé dugg Baye mbër bu yàggee tuuti dina am ku bàyyi ñoom ñaar. bébé dugg bàyyi ji li. bébé jéen a ngay pompé Ousseyn. coono nga commencé dugg bàyyi ji li ñoo ngi jàppante ñoom ñaar. ndeysaan li ñu bëre nag dafa yàgg. combat bi. ndeysaan ñu ngay bëre ñoom ñaar. ndeysaan fi mu toll nii. bëre nañ cinq minutes ñoo ngay bëre bëre nañ juróomi minutes yoo xamante ne amul taxaw. dañ koo attaqué rek dalante ñoom ñaar. dóoral ma dóor la ñu doo jàpp. bébé jéen a ngi koy pousse. bébé jéen a ngi pousse fourrière. Fourrière yi jàpp di ko déglu Baye Djily Bébé Diène dafa war a taxawaat dafa war a taxawaayam jàkkaarloog Bébé Diène jànga jàkkaarloog Fourrière joxaat ko bi mu am ndax boo xoolee Baye Djily moom mi di Bébé Diène damaa gis ne joxul cër Fourrière te da a jox cër xam ne adversaire la am. waxoon naa ko Ousseyn avant combat di commencé nee naa Fourrière mii ma gis am na benn concentration boo xamante ni mu ngi koy jox combat am am na respect bu mu jox adversaire am Bébé Diène bu ko ko mbégteel mën na am ci combat bi gis nga Fourrière. Fourrière fi mu dóor baaxul. a bi day àtte dóor baaxul. ah àtte ah, waaw waaw fi mu dóor baaxul. Fourrière fi mu du dóoru kaay dóor. arbitre bi da koy tere. président Alioune koy aaye. loo ci mën a dégg mooy xale yu bëre nañ bëre bi neex na xeex bi neex na. xaw ma lu leen fay de waaye jar na ko ñoom ñaar ñi. Kayra dugg na ci biir lu mu bëgg. sama papa Kayra daa bëgg a dugg ci biir géew bi. Bébé Diène ngay tekki nga waxoon coono daa dugg coono daa commencé feeñ ci làmb ji bàyyi ji tekki sengoor yi léegi sëriñ bi am lay <laughs> waaw waaw léegi sëriñ bi ne ko sengoor ba ma la joxoon lu munti xew waroo koo tekki <laughs> tax na ko mu dem ba Casamance yii mu jëlee kuri saa tool maa ngi nuyu sama waa dëkk boobu di waalo est-ce que demul waalo sax moom mii Bébé Diène mun na koo jëlee sax Bambey dëkk sëñ Bass Bambey Jurbel Jurbel Bambey taaxu la séeréer commando sama ponkal mi kenn moom lamb daal a ngi noonu bébé Diène baa ngi noonu di dem ñoom ñaari xale yaa nga noonu ci làmb ji bébé Diène Fourrière arbitre bee ngi noonu ñoom ñaar avertissement Fourrière nee nañ ko fi nga dóor waroo faa dóor arbitre bi sifflé waat na Ousseyn ndaysaan ak ki nga xamante ne mooy bébé Diène bébé Diène la ma la waxoon moom lay def ah lan la waaw ah, observation dina am ci làmb ji ndax jàppante nañu ku ne xam na sa morom la muy saf ku ci nekk di nga taxaw déglu lii combat bi ba mu leer nga doog a dem bàyyi ji lii noonu la demee Ouzin combat bi ba mu leer fi mu toll nii ñu dem ñoom ñaar ku ci nekk day téewaat boppam day téye boppam ndaysaan ñoom ñaar ku ci nekk day téye boppam ña nga ca combat bi Fourrière Bébé Diène xale yi bàyyi ji la ñoo doole eh làmb. dañoo tolloo bëre ña ngay bëre. tolloo nañ doole ña ngay bëre. mën na làmb. soo làmbee daj mu neex. jokkaas na Bébé Diène jokkaas na Ousseyn. Bébé Diène Bébé xale yaa ngi ci digg géew bi ah oh, Assane Ndiaye woo ñu fi suma suma su ma su ma neexee ma ne saison bi day pause. ña ngay dóor dóor mu daanu mbaa du am ña xeex dóor mu daanu mbaa du am dóor na jël na ko ña ngay bëre ña ngay bëre ma ngay bëre kaawo mbaa du am ardo protestant bébé Diène ma ngay yàbbu protestant bi rek ah waaw lii lan la mais baa ji lee sax xale yi tàmm leen sol protestant bu ñuy am déedéet bébé Diène moom li muy simi yàbbi protestant bi bari na bari na loolu ñoo nga noonu Fourrière dem na ci cimikaay bi Bébé Diène a nga noonu déggal nee na supporter Fourrière yi kaay leen ña ngay xeex xeex bu metti ñoom ñaar mais bàyyi jili Fourrière lim xeex leegi teg ko ci dëgg teg ko ci yoon non daa dóor ku Bébé Diène bëgg a jël tànkam mu daw def rotation dawul pour génn làmb ji mais daa pivoté Ousseyn pivoté bi jaar na yoon de loolu nga gis man pour man de ragaloon day bu bu continué woon tuuti bu duggee ci axe Bébé Diène Bébé Diène da koy dóoraat beneen coup bu daloon day daal mais est-ce que xam nga ne xale yi dañoo privilégié xeex bi waaw dañoo privilégié xeex bi oh. xale yi dañoo ñemente ñoom ñaar xaw ma la moo nekk seen diggante waaye règlement de compte am na ci mooy ku ci nekk li ma la waxoon sànq Ousseyn kii mbëru gox la kii mbëru gox la kii dëkk Grand Yoff kii dëkk Rëbës ku ci nekk daa bëgg a génn te pour ñu génn combat bi mooy seen combat déclassement ndax damaa xam ne ñoom ñaar mën na nañoo bëre mais ba léegi bërëb duñ ko jël te kon nee ñoom ñaari xeex moo tax ma xam ne ma ma ragal ne am na lu nekk ci biir. Bébé Diène. Fourrière Fourrière fi mu toll nii Ousseyn mënatul def dara. loxo yi gu coono daa dugg baa ji li waxoon naa la ko ñu lewtowee jàppante bàyyante coono dugg na. Oh. Fourrière dem na ba daa wàccee garde bi. ku bu ko Bébé dóor day dugg. Bébé Diène tamit bu jeexalul woon am na nu muy attaqué Fourrière mu dóor mu daanu sax mën na ci combat Baye Djili Fourier pare na ci làmb ji. pare na waaye bébé jën bébé jën tamit Ousseyn sonn na de. oh bébé ko léegi ku ci biir bi ñoom ñaar joxe nañ lépp amoon Baye Djili ñii desalatuñu Assane Ndiaye dara amateurs yi kontaan nañ supporter seen xol sedd na. en tout cas daal xaw kan moo ñemee wax mystique jàpp na ma waaye du ñaari mbër yi ña ngay xeex dóorante nañ jàpp na taxabal bi bañ na bébé jën taxabal na ko Fourier bañ. oh ndeysaan mu ne lan sëñ Bas. jàpp noppalu rek. mooy laabu ji fi mu ah, ñoom ñëpp sonn nañ kenn ñemeetu la jël risque dañuy jàpp noppalu rek ku def faux pas sa morom daan la bu ñu defut faux ñu buuxante dem ba ci saaku yi tafu. mot na ko mot na ko mbaa du mujjee jaay ko mbaam Fourrière xoolal tànk ba fam koy teg waa xale yi lu ñuy bëree sëñ Bas ah Ousseyn xoolal ma xale yi la ñuy bëree. waaye coono daa dugg. mais boo xoolee ñoom ñaar ba tey am na résistance kii di Bébé li muy def di ko forcer na ko oytu ndax néewul doole te xam naa ne am na résistance Bébé Diène na jox cër adversaire am moom Baye Djili Bébé Diène li ma jaaxal oh Bébé Diène daan na Fourrière Bébé bi lu may jox rotation naag moom lan la Balla Balla Gaye Ousmane Diop daa wàcc fractionné daw tur ko moom mi di Bébé daan na ko jël bu daan na Fourrière Bébé Diène daan na Fourrière jàpp na ko rotation ak moom weñ ko mu daanu ci suuf sonn daa sonn Fourrière daa joxe lu mu am Bébé tamit sonn na waaw lamb boo moytul mbër dina fi faatu ah. xoolal Fourrière ku yi mu jël coono gi mu sonn ci lamb ji daanu na au lieu que coach bi daw ñëw si moom jéem koo soutenir xool lan moo manqué ci moom bu dee ndox la ñu renforcer ko jéem koo yëkkati mais dañ ko bàyyi mu daanu di forcer di yëkkatiwaat boppam. mais athlète da nga koy jàppale ba ba muy jeex même bu ñu ko daanee dawal gaaw yaa war a njëkk ci assiste ko war a koo bàyyi moom muy téye boppam. jërë jëf mbokk Bébé Diène a ngi noonu ndeysaan bëre bi bëre bi Bébé Diène bëre bi lan la sant yàlla oh! Oh! tay gis naa paskaay ñu ko teel a limal mais moom bëtam ci kaw rek te gisagu leen dara. parce que nangu na entraîné il est sérieux de combat bi daf ñu jaraloon lu ne parce que premier grand combat am la dafa amoon importance si dem mais nañ leen dem si kanam ngeen comprendre écurie suma jun suma ngeen gis beneen écurie incha allah. li li ma jaaxal. mooy su xale yi di bëre. doo toog doo taxaw maa la gis yaa ngi jóg yaa ngi toog. yaa ngi def lu ne. xale yi ñoo xale ma bëgg ma ne ma def leen ko sama comme sama ay doom. ay complice lañu man ak ñoom moo tax suñu bëree man du ma du ma toog ay complice lañu. mais père boo fekkee sax day mel ni wax ñoom ñoo jur. waaw loolu moo xam nga dafa mel ni mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci li nga xamante ne mooy combat bi dox ci diggante Bébé Diène ak Fourrière Ousseyn gis nga ni combat bi demee. bàyyi xale yi bëri nañ bëri nañu xeex nañu kii di kii boo xoolee dafa dem ba ci biir làmb ji mu xaw a jeexal moom Fourrière moo tax boo xoolee am na résistance mais làmb ji Bébé Diène dafa mel ni moo gën a am coffre tuuti ndax boo xoolee dafa dem ba ñu dañoo jeexal mu mel ni ko ko fàq ba muy jógaat mu daw mu daw flexionné pivoté dóor ko man moo xoolee kele boobu dan sama xel day dem ci Balla Gaye Ousmane Diop bàyyi jiile jël bu rëy la ko daan moom Bébé Diène daan na Fourrière carrière Bébé Diène nañ ko bàyyi xel la te daa bokk ci làmb boo Euh, waa Soumbédioune dafa am fu ñu ko teg te moom gëm na loolu ndax boo xoolee lu simple yi chaque jour da ciy dem di si participer mbër yu mag yi bàyyi leen ko xel ku ko ci mën a jël na ko jël léegi su doole ji yokkoo xel mi yokk xel xel mi su doole ji yokkoo fit bi yokk xel mi daal du neex a jëflanteel bàyyi ji li Fourrière tey wane na leneen loo xamante ne ndeysaan ñàkk ñëw rek mu ñàkk waaye jàmbaar la ndax euh, wane na jom wane na fula wane na fayda ba keroog muy ñàkk làmbam. kenn du ko wax acim moom Fourrière la waroon ci làmb ji. def na ko bu ñu simee ko képp ku àndoon ak moom soxol sedd na. abi bi sifla na tegg abi bi na loxoom seen diggante mu dox dóorante ak moom bëre na xeex na mais il n'a pas de mérite na dem defaru di waat takkaat ngemb yi takkaat jaaj yi duggaat ci biir géej gi wutaat doole te waajaat ñëw làmb jeexul baay ji li jërë ngeen jëf mbokk yi làmb jeexul dégg ngeen li nga xamante ne moom la Ousin wa mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba léegi incha allah ci beneen xeexewu làmb jërëjëf Ousin jërëjëf Baye Djili kontaan nañu Bassirou jaajëf aja